waaw ñi ngi gisante euh, mu ngi jaaree si suñu loxo benn oncle bu tudd Amari Gise bu BSDA moo ñu boole woon pour ñu liggéey ndax dafa gisoon xareñam ak euh, pastéfam si musique bi mu boole ñu alors bu ma demee seeti leen euh, ñu proposé ma pour ma liggéey si journal rappé si laa defee benn son bu tudd Cura Jooni waaw yàlla def am lu juddu si diggante bi waaw yàlla def ma doon soxnaam. waaw yàlla def ma jëm na moom jaar ci suuf. <laughs> xam nga rek. waaw. def <laughs> yàlla yooyu noonu. waaw waaw. mu def ma doon soxnaam euh, léegi euh, ñu ne duñu def du boole suñu doole ndax euh, lu ñoo fee la force ñu boole suñu doole yi forme benn bu tudd Mabo et puis ñu def suñu musique di bëgg a bëggal nit ñi. Ah, ndax ñëpp gis nañ lan la Mia def ci sama carrière ndaxte boo doon liggéeyoo kese ñu xamee la comme producer soo soxna ñëw ñu xamee la comme single tamit loolu rek wane na. changing bi si am euh, fi mu toll nii sant yàlla ndax lépp change na di ñaan yàlla mu gën a jëm si kanam waaw li ma gën a neex moom euh, bëri na <laughs> mooy dafa baax euh, am yërmande si nit yëg nit trop waaw <laughs> xol bu may buux gis nga. noo la nekkee si kër bi noo koy. Ah, <laughs> yes mooy suñu mbëbët mooy euh, suñu vision mooy na couple yëpp di juboo ànd foo kafre yes moom mooy suñu objectif waaw mooy tàggat bi mooy tàggat bi euh, di ko dalee si suñu yëre yi déjà pour euh, wane ñi gën nañ suñu bopp gën nañ suñu réew gëm nañ suñu Africa te mun nañ ko développer su fekkee ñun ngi consommer local maanaam ñu ngi jël li am ci réew mi di ko mettre en valeur waaw loolu mooy objectif bi ñëpp gis ci seen bopp couple yi gis seen bopp ñi nga xamante ne dañoo gën seen bopp tamit ñu gis ci seen bopp yes